moo bu njëkk dama doon génn ñi di la ndaw ak naan moo jaaroon fii moo defoon lii c'est la première fois ci histoire Sénégal ci nguuru Macky Sall la ñuy jàppee nit bàyyi ko adduna bépp di la teet te suba ba léegi ñoo ngi jege dakaar di ñëw te fu ñu jaar nii lay mel waaw waaw Thank you.

waaw sa am kii ya live ngay dem kii da ngay jiitu kay wàccal waaw da koy boole bii parce que ci bii laa ko partagé am am xoola ku woote da nga koy coupé bu ko jël teel man la. live mi ngi dem très mi ngi dem waaw am na cinquante naa nga am quatre. mais dama koy boole teel sugal ci yow gars yéen a ngi live bi direct dans ah, Darou Moussi avec Cheikh Omar Bamba Diop le président Moudab mooy dugg si Darou Moussi nii. Abdou Khoudoss. dégg nga waaw. oui. Cheikh moo dugg ci dëkk bi. lu leer. jaaxal gars yi. ne Cheikh Omar ci dongoy Sonko Sonko yi la bokk. lu leer tey tey jii tey jii bu leen Sonko moo ñëw fii tey naka lay demee wallaahi lu mu jaral leen ci suba ba léegi ñu wàcc ay policier ci dëkk bi fu ne ñu dugg fa indi naa lu ne billaahi am ceer na jot na moo ngi nii mooy nekk nii na ko gaa yëpp seet wallaahi lu leer ak délégation Serigne Assane Mbacké ah? ak Moustapha Diouf Lambaye ñoom gaa yëpp a ngi ci biir Koureysi Thiam Darou Moussa ñëw ci kaw Senghor. ci digg bi nga koy def ci digg bi. dugg ko ci digg bi. oto bi na ñëw oto bi na day ñëw nii. voilà. maa ngi ko mu dugg si biir. Cheikh Omar ay noonu ah le président mu dab Cheikh Omar avancé tuuti dugal ji mu def Cheikh Omar Bamba Diop moo dugg si Darou Moussi ni tey jëriñu ah. ak laa mi ngi daaroo na le ba sedd na tey moom ma nga biir daaru Moussi quoi laa mi ngi daaroo daaru xamuñu ne xamuñu ne xamuñu ne président mu dab rek moo ñëw fii bu Ousmane ko ñëwoon tey ni mu mel. wallaay wallaay sa waay ba léegi ci suba baa ngi lëfër lëfër yi fu ne moom moo dafay pël wallaay jeex bëccëgul dara jàmm la ñu dugg. wallaahi leer naa leen ko. booy ma dem ma jàpp. ak bëgg jàmm may ko mu dem ah. na xam nga naa est-ce que. taw bi sant nga ana mu. ah. waaw <laughs> dafa yaar. <laughs> maa ngi am mu daaru nga ah. ay man dama génnoon nag. waaw. ci direct bi de ah Darou Moussi avec Cheikh Ba Omar Bamba Diop le président mu def moo dugg si daar Moussi doomu Darou Moussi yëpp dañoo jóg taxaw tey doomu daar Moussi yëpp a jóg taxaw Macky Sall képp koo xam ne jàpp na ko tëj daan génn kaso ni ñi dañ lay daw bu njëkk ba ma saan génn kaso nit ñi dañ lay daw mais léegi da ngay dugg kaso génn comme na nga demoon Màkka bay doog ñëw lii am na ci ay kilifa yoo xam ne mënuñu ko am kii nag mooy Cheikh Omar Bamba Diop borom Daaru Musi borom xam ceer na jot na tey ñoo ngi nii jógee Ndakaaru ñëw ànd ak moom ànd ak la délégation Pastef yëpp avec Khoureychi Thiam Serigne Assane Mbacké Moustapha Diouf Lambaye ñoom ñëpp a ngi nii ah ak Cheikh Omar Bamba Diop ñëpp a ngi nii ah, ak si Omar Bamba Diop moom laa mbaay ñëpp a Jakarta yi kenn desul ñëpp ay génn tey teertu si Omar Bamba Diop góor ak jigéen mag ak ndaw lii nag mooy fierté lii mooy xeexal sa réew lii mooy xeexal sa réew Cheikh Omar ku ne xam na ne li ko dugal kaso lenn dong la muy jaay doole ma Macky Sall ak tey injustice ak jaay doole moo ko dugal kaso lu toll ne Michael Darou Moussi ak lu toll ne Cheikh Omar Bamba Diop ak li mu joué ci Darou Moussi lépp waaw lu ne Cheikh Omar Bamba Diop ray noonu jox la bracelet da ngay programme damay damay jënaat Daaro nga waa moom frère laa muy Daaro waa waa waaw ala gars yi kii bi déen wax ne kontaan nañ trop vraiment billahi parce que bu njëkkoon ku masaan dugg kaso booy ñëw guddi ngay ñëw wallahi wala ngay sol ay capuchon di masque wu di ku ne xam ne nag kaso Macky Sall du gàcce wallahi du gàcce kaso Macky Sall du gàcce wallahi kaso kii mooy Cheikh Omar Bamba xam ceer na jot na tëj ko huit mois ci biir kaso ci ci jaay doole. billahi wallahi ànd ak waa Pastef yëpp nag sëñ Assane a ngi nii sëñ Moustapha Diouf Lambaye nii ci biir Khoureychi Thiam ñoom ñëpp kenn desul ñëpp ci biir ñëpp ci biir.

dèjà mbokk yaa ngi nii muy nemmeekonte ak ñoom lii rek mooy moom solo quoi c'est la première fois ñu gis ci histoire du Sénégal nit bu génn kaso ñëpp di ko tertu ak ay jooy ak kontaan ci moom ndax xam nañ ne li ko dugal kaso li ko dugal kaso ci maa tayu Macky Sall la injustice la ci jaay doole la waaye nag jeex na sàkk seen doom seen xarit Cheikh Omar Bamba Diop laay lu leer tey nag dama am jàngat bu am solo bu may def ak euh, les frères collègues lu leer les collègues Sonko yàlla ñu ko yàlla fayal li mu def ci Sénégalais yi nekk nii waa kër gi ñëpp a ngi toog di ko xaar ak délégation bi nga xam ne ñoom ñoo ko tertu woon ci tali bi. Cheikh Omar a ngi noonu di ñëw. wallaahi mais day am. mënuñ ci dara. mais lii dañ koy gis. dafa leer lii gars yi dañ koy gis. xam naa ne lan moo faj mais lii dañ koy gis. mënuñ ci dara nañu xaar ko ñu sekk bu ñu ko libéré nii lay demee. nii lay demee te su boobaa mooy dàq bu ñu ko libéré nii lay demee waat incha allah. yaakatul dara amul leneen. wallaahi lii lañ doon bañ. wallaahi te dayoo mais incha allah rabbi dañ koy gis. kenn mënu ci dara la force la force dañ koy gis Ndiaye. waaw. mënuñ ci dara waa kër gi yëpp a ngi nii waaw. mais ñeme ñemewuñ ñu quoi ñemewuñ ñemewuñ ñu quoi. laa bi waaw ah. jaar de. feeñ bu foofu Cheikh ñëw fa ne. waaw ak maire Kër Massar ñoom ñëpp ña nga fa. mu ne daa bëgg seet bi ñoom bi daal waaw ña nga fa ñoo bay xoole waa kër gi ñëpp a ngi ñu dugg ta avec ah. Cheikh Omar Baba Diop ba ci kenn tax waaw defal ni waaw yéen sama mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen Omar Bamba Diop fekk fi ay kilifa yu baax ñu nekk waa kër gi la toog di ko xaar di ko tertu Cheikh Omar ay nit dugg si Darou Mouhty. jërëjëf jëf dañuy ziar baax. jërëjëf jëf ndeysaan dañuy ak délégation bi ànd avec Lamine Darou. gis ngeen gaa yëpp a ji nii kër gaa yi fes del Aja Fall mu abbaay mënuñ ci dara mënoo ci dara faaw nit ñi dañuy so gis-gis de. voilà. Ah, ci dara. mais fierté la quoi xam nga bu ñu yëg da nga doon nit ñi di la ndaw. ak naan moo jaaroon fii moo defan lii. c' la première fois ci histoire Sénégal ci nguuru Macky Sall la ñuy jàppee nit bàyyi ko adduna bépp di la teet te suba ba léegi ñoo ngi jege Dakar di ñëw te fu ñu jaar nii lay mel. gars yéen a ngi ci direct ci live bi may ma laaj quoi may ma laaj quoi. mën nañu rek waaw waaw. voilà suma gars yi mi ngi nii. noonu ñu toog ak papaam sëñ Cheikh mi ngi nii papaam a ngi nii ndeysaan daaru mu si gépp kenn mënu leen a fay vraiment ñëpp a génn ñëpp a ngi nii vraiment kenn mënu leen a fay kenn kenn mënu leen a fay vraiment voilà ne am na xel li wax allahumma amiin amiin waay barke Cheikh Khadim léegi dañuy dem kër kër kër sëñ Abdou moom Baye Cheikh Khadi fa la ñu defee cérémonie incha allah léegi kër sëñ Cheikh Abdou moom Baye Cheikh Khadi après ñun ñëpp fa la ñu dem sëñ Assane Mbacke ñu nii sëñ Assane Mbacke ak sëñ euh, sëñ man daw xare doo daw xare ndax ko sa yaay di jàmbaar doo daw xare ajo kii kii ko yoon bi ñu dem ñu dem ñu dem ko ana Fallou am léegi dama Biram jël nga Thierno nag. doon nga ko jël gisuma Thierno ana Thierno. doon jël ko wan ko gars yi. tey ñooy suñu frère. suñu xarit suñu lépp la nekk nag tey moo tax. waaw awa ci ma Thierno Mbaye 122 personnes ñu ngi ñuy seetaan kii mooy président maam Thierno Mbaye. Mhm. di nit ku baax koo xamante si nii. Mhm. Euh, fu waa Daaru wootee moom. kon kooku bëccëg ndara kàmm la war a ñëw kon xay na ful bii la gars yi doon bañ mais lii mënuñoo tee mu am mbedd mi lu mu ruqa ruqe lu mu sori sori mbooloo mi danañ fa fekk Cheikh Omar Bamba Diop te mooy maam Thierno Mbaye mais ma ci yokkal sama frère rek laa mu ñu daaru muy liggéey liggéey bu am solo ci biir daaru musi ak li wër daaru musi yëpp na ñun xam nañ ci dara man dëkkuma biir daaru musi maa ngi dëkk ba daaree sëñ Fall mais liggéey bi mu liggéey dama koo gis dama koo rafetlu à chaque fois lépp lu nit am problème bu waaye am mu taxaw ci def ci la man soxe ci xalaatam di ko ñaanal nag lépp li muy yóotu ci politique yàlla defal ko ko ku am xam la ku jàmbaare la ku am ak ngor ga moo rawati ak Moustapha Ndiaye ah, dañ see gagné noonu suñu waa ji. di leen félicité ci Cheikh Omar nag suñu rakk la moom damaa ànd dëkk bi dëkk daal lii dafa jaar te itam nit bu tëddee kaso bu ñëwee war na gis ay mbokkam. moo tax ñu ne woon nañu ñëw génn kon dinaa dàpp ko recevoir ko suñu doom bi suñu rakk la doomu dëkk bi dëkk baax la waaw ci Serigne Touba rek lay waxtaan ak borom daal donc kon lii moo amee daal ngeen tam ay gone ngeen waaye borom jom ngeen ak ngeen fit am nañu yàlla sutura rek ak ci Pape Modou Seck aussi moo ñu dese ci biir. moo des gën a génn. incha allah ndaxte véritablement moom moo gën a yàgg. Mhm. te itam ñu génn ñëpp. wallaay jatay waaw ñu waaw bàyyi nañu soxna Ami ñëpp te ñu ngi xaar le président Ousmane Sonko bi nga xam ne mhm. dëgg dëgg moo waral coow li. Mhm. aussi mu génn. incha allah aussi euh, place bu fee daal. ñu ngi leen sant baax di leen élection par force ah. waaw waaw. jamaa ay Sonko de. amul ragal. en tout cas daal xam naa ne ñoo far ñoo far ñoo far. ana askan. merci. Brazzaville boo yaa dem lu ma jox benn de. Ah. barke sëñ Bamba ma jox benn Fall. waaw waaw mais nañ ko may mu jàll. def leen ndànk. gis nga waa kër gaa ngi nii tey kër gaa ngi fees dell kenn mënu fee xaj tey ama Cheikh Omar Bamba Diop bu leen gaañ seen bopp def leen ndànk. wow. Eh, kër gaa ngi fees dell tey kenn amul foo jaar. dafa kii sax mais. daa vidéo nga waroon di def eh, maa ngi def ay vidéo sax maa ngi koy defaale. waaw. si ngeen mbooloo maa ngi nii ak Cheikh Omar Bamba Diop waa këram ñëpp te dañoo génn amul jigéen amul góor amul mag ndaw waa Darou Mousty ñëpp dañoo génn tey suñu frère yi noonu ñu daaru askanu Daaru Muxti yëpp génn nañ tey perte seen xarit seen doom seen jàmbaar ji nga xam ne tey Macky Sall dafa ko jàppoon ci injustice ci jaay doole ci maa tey li rek fierté la génn kaso sa waa kër yëpp génn di la seetaan di la tàcc di la jaajëfal kontaan nag ci yow bu baax tey jii suñu mbokku tiktokeur yëpp ñu ngi fi Ndiaye Touba yi nii suñu mbokku tiktokeur bi allo Thiat non loxo moo ko rek.